Euh, te mu nekkoon fii liggéey ci nga xam ne ko ci fii ci maanaam Banjul nekk nit homme politique xamante bu ñu ràññee ci liggéey bu muy def honorable ñu ngi lay nuyu maa ngi ànd ak suma naataango euh, Adama euh, Amadou Bari ñooñu defandoo interview bi am ak groupe bi yëpp ak Mamadou Ibra Kane directeur général bi ñu ànd ak suñu équipe bi yëpp ak ñoom ñëpp ñëw fii ci Banjul léegi nag élection yi samedi lay doon incha allah si ban état d'esprit nga nekk naka ngay xaar élection bi. leen ma dalal ci seen programme bi euh, ñu ngi leen di welcome parce que élection bi nag am na ay weer yoo xam ne ñu ko doon séntu léegi na ñaari fan rek ci nekk des ñu dem euh, joxe suñ karta yi euh, ma nekka nag alhamdulillah sant naa yàlla ci li ma gis ak buut Euh, te yaakaar naa ne li ma gis ak bóot dina nekk karta loolu laa yaakaar ci kattani yàlla. xel yi dal na euh, si ñaari fan laata jongante bi mën nga ñu wax tuuti xëy na sa wàllum wérgu yaram amoon na ci tuuti ay wax yu doon yëkkati ñu xam le ne euh, yaram bi neexu woon noonu ndax mën nga ci àddu tuuti si ñi nga xam ne nag mooy ñu la war a woteel wala ñu la ñi nga àndal. xam nga politique. moom sa adversaire bi lu nekk lay jël eh, nga sànni la ko loo xam ne am na dinañ ko wax loo xam ne amut dinañ ko wax tey sax taage nañ ma ne dee na ñu ne RIP ma ne waaye dañ juum ne waroon na waa ne RIH rest in hell <laughs> non comme nga koo énel dee nga kooku doo ko énel ajana li nga ko énel muy eh, muy safara loolu loolu la waroon a wax waaye Eh, alhamdulilah feebaruma xam nga feebar ak nga am certain situation duñ benn eh, lii nekkul lu bees dama du du feebar eh, boo xam ne yaa ngi ci diggante dee ak dunda although aduna mu aadama bu nekk saa boo nekk yaa ngi ci diggante dee ak dunda waaye fu ñoo wax ne nit sang diggante dee ak dunda mel ne mu ngi tëdda mu nekk boppam dara Euh, soo gisee ma toog man mi man in fact dama wax suma campagne bi ne euh, alxamis dama doon dem join ci teeru bi waaye suma docteur ñu ne ma déet eh, dañ bugga comme nga lii yàq la te nga dem bugga mu gaaw a euh, mu gaaw a wéer mu gaaw a xiil soo na nga toog non bul dem fenn sa mouvement bi na ko restrict waaye ma ngay wax suma supporters yi ak ñi nga xam ne bente di sayduñ fu ñoo votal ne euh, maa ngi wér euh, dara jotut ma te lu ma jot itam mun ma tere def liggéey président parce que su may liggéey liggéey président du tànk laa koo defee maa ngi koo defee ak xel te ma xel mi mu ngi fi dara manqué wu ci waaw. yow président Barrow yéen a xeexam doon ba jël nguur gi ñëpp xam nañu bi nga fi nekkee opposant historique fii ci réew mi li nga li la jot def. bi yaa jame nekki fii pratiquement euh, da nga xaw a nuroog Ablaye Wade bu nekkoon Sénégal jot ngeen nguur gi ngeen toog di liggéey benn moment déggawu leen yow nga jël sa responsabilité dem sa yoon waaye léegi moom euh, lu mu liggéey jurum ci yo mi ci yow ban gis-gis nga ci ban bilan nga ci am ban xayma nga ciy def. maanaam yow ak Adama Barrow ngeen andon lol ànd bi rafet ngeen in 2017. juróomi at ci ginnaaw nag tey jii nii ngeen ko ku nekk den yoonam tey jii nii nag ñu xamante ne ku nekk daal yaa ngi sa yaa ngi béy sa waar ndax mun nga wax tuuti si li nga xam ne moom la Adama Barrow def si juróomi at yi ban gis-gis nga si am. waaw waaw jërëjëf ah, ah, ah, damay wax ne président Adama Barrow def na lii naa ne gouvernement bi lan la def parce lépp li defoon collective responsibility la am na yoo xam ne euh, ministre si ñoom ñoo ko liggéey waaye nag as comme nga mooy euh, head of government moom moo dee jël daka euh, nañ ko gërëm bi responsable moom lañ dee gërëm mm. waaye taxut ne moom moo ko def par bi ma nekkoon foreign minister Eh, li ma def moom xelatul ma ko maa gis ne lii as foreign minister dama war a def lii dama oote diplomate yëpp même ñi nekka Dakar nekka ambassade ci Gambie dama leen oo ñoom yëpp woon leen gouvernement bi lan lañ bugg a def ci diplomatie comme nga Gambia wéetoon na lool wéetaay bi ma ne naka lañ ko génnee ba lifin Gambia daal dina war na nekk human rights capital ci Afrique ma ne leen loolu suma mission la eh, eh, woon ñi nga xam ne eh, ñoo nekkoon coloniste ci Angleterre woon leen ne commonwealth dama ci dugga te li ma si euh, boo xam ne danga yobu euh, sa mandat pour ne dama bugg a bokk ñu yónnee ko yeneen état yi ñu vérifier ko ñu xel ñu weccante xalaat ma ne loolu loolu nag bëgg ma loolu am ci ñun bëgg naa euh, yéen foreign ministers yeneen réew mi yéen mi nga xam yeneen ambassadeurs ngeen yëgal seen ministres yi ne li ma bëgg dinañ def application waaye nañ ko treat as a pas working resolution buñ xaar ba ñu am coogam ñu soog ko yóbbu ci de eh, d'état yi ñoom ñu approuvé ko so looloo tax balaa ñu am coogam bi Angleterre xëy nga ñu admit koon ci eh, ci Commonwealth. dégg soo ñu mayee xëy si yow nguuru Adama Barrow xam nga def na juróomi at si boppu nguur gi tey jii nii moom lañuy ñuy pour yow liggéey na am liggéeyul lan nga lan lañ mën a jàppandi si nguuram yow si sa gis gi lim gën a liggéey. walla liggéey na wala liggéeyul. loo nga si am. <laughs> wala liggéey na ndax liggéeyut eh, ban mandat jox loolu ngaa seet lanay sa mandat yow sa mandat mooy eh, nga nga isil ñu constitution bi ees mai samanda samanda moy ne nga am commission boo xam ne danga ko taxawal pour xeex corruption TRRC ne loolu danga ko taxawal loolu loolu yooyu mooy samanda human rights commission nga nga samp human rights commission commission yi yëpp samp nañ leen waaye bu gën a am solo mooy bu constitution bi ñu daax ko ñu bañ ko loolu mooy foundation bi so man ci suma gis mooy ne lépp loo xam ne mu ngay wax ne lii laa def nekkutoon ci mandam infrastructure bi moo wax ne liggéey naa lii ci yoon ak yooyu <coughs> man ko na ko dee fàttaleel te xam na ne te kenn du ci ko mun a wéedi bu ma nekkoon forum ministre maa demoon bi ma dem Chinese samba euh, forum ministre bi Wang Yi moo invité ma ci August 2017 dégg nga ba ma demee dama amoon lu ñoo wax shopping list so marché ngay del lan ak lan nga xam nga boole naa ci yoon ma ràññaale ci benn région fii fu ñoo wax ñaani jaa boo xam ne soo fay dem pour du am auto du am moto pour dem faaf alarba bes mu niki alarba ci nga am moto pour ga si biir sooy gene itam alarba nga mëna am moto pour gene wa ma borom auto de waaye ñu nga commercial de lu war lool parce que lu lu war arba parce que bes bo moy bési luumoo ma ne leen ñooñu day ñaka yoon gambia généralement day ñaka yoon waaye fofu ñaka ñaka na ñoom may dimbale may ut ndimbal ñu dimbalee ñooñu ndax xaaji guddi suñu amee ku feebar pour génnee ko yow ko ci hôpital yi dafay nekka dafay jafe lool eh, ah, yàlla def eh, ñu dégg suma wax ji eh, meññu meññu xaalis fa joxuñu xaalis waaye nag may ñu yoon li ñu yóbbu loolu Fatoto waaw wax ne man maa leen isil li maa leen ma neen la ma neen la wa dégg dégg ne waaw yaa nekkoon président nag waaye lu lu war góor bu nekk da ngaa lii de maay suma présidence laa ko amee waaye diw sangam bi mu demee palaasi sangam daf ko ci fa jooytul eh, ma ne so eh, infrastructure mu ngi jéem try pour def loolu in fact eh, bu yàggut balaa bi ñu annoncé élection si ci la door di tànn ay place ne dañ faa liggéey yoon yi te ji na li ñu gisee loolu na ma politique la annonce nañ ne gannaaw ëllëg élection yow nga ñëw tey ne ma leen di si euh, yoon ñeneenti at yi passé lu tax xalaatuloo ko. loolu nee nga constitution bi nekkoon na ci mandaam pour mu changer ko defar constitution bu bees te defu ko moom nee na. Euh, dafa d'accord léegi Afrique ñoom limitation des mandats maanaam ku toog su nguur ñaari mandat rek nga mun am lan mooy sa xalaat ci loolu. waaw loolu la wax loolu la wax waaye ñun suñ constitution boobu ni mu ne ñaari mandat bi ni waree doon mu ne mu moom nangut loolu soo moom nag ci constitution bi li mu doon séntu mooy na ko may mandat fukki at ak juróom. loolu la ci doon seet yow li nga d'accord ak askan bi mooy def leen ma président ma defal leen liggéey bi ci diir ci at ma wàcca yow su fekkee def loo loolu ba ñu bàyyi la nga dem juróom at loo war a sentuwaat beneen fukki at parce que constitution bi lim fi may euh, ñaari mandat waaye ku nekk président su fekkee eh, loi bi taxaw na ku nekk président mandat bi mu daan nekk boo mooy nekk sa première mandat ba pare nga utaat beneen mandat soo mun a nekk fukki nekk ñaari mandat hmm. soo fukki at mu ne du ci dal honorable ci wàllum koom juróomi at si ginnaaw ak léegi ndax seetlu nga ne ndax am na lu soppeeku am na lu ceeñ si dund gambian si maanaam tey jii nii su su amone galang walon kom tejini ndak ndax fo nga ne si nguru Adama baro affaire yi tanena na wala defa gëna delu gëna nga eh, dund bi defa gëna cher legi euh gën na la wadi ñun bi nekkon ci nguur gi suñu finance minister bi Amadou Sané nga mesures yi mu jël nga dafa gis day no bena dépenses government bi daf ci taxaw. ne def dépense yoo xam ne ay dépense ñàkk a fayda la yooyu ne war a génne in fact suñu budget bi mu njëkkoon a lifin mooy dañ doon save three hundred million dalasi ci véhicule police yaa ngi gis amee auto gouvernement yi ñuy daw essence bi maintenance bi fay sofoor yooyu yëpp dégg nga ah te ci ñàkk fayda mu ne nañ def policy boobu ñëpp d'accord ci ñu yóbbu ko National Assembly National Assembly d'accord ci waaye pour doxal ko nag nag ñëw nekk problème mu am ñu toxal ci noppi président bi ne ko li soo ko defee euh, élection soo ñëwee élection doo ko doo ko gañee waaye nag su fekkee yow man suma xalaat mooy su fekkee sa intérêt réel mooy problème askan bi boobu nga bugg a solve def ko nga ñàkk élection bi history woon ne ne kii nekkut koo xam ne palace la bugga lii njëriñ réew mi loolu la bugga amoon nañ expérience bi ci Gambie bi eh? Uh, ERP Economic Recovery Program, mo am civil service bo xamne ken mun la wax ñaata ni ta fa nek ndax def audit ñu da ñep wa daaxuñ len way ñu wacce ñu bari ba paré fay len su économie bi do di di di di wax nak lool la Amadou Sané bëggoon a defin waaye ak expenditures yo xamne su ñëwee présidence office yenn président bi moom boppam moo ko dee ne bëggoon na ngeen mu ne ko dee duma ko nangu mu lan la def mu génnee ko finance yóbbu ko trade. yow tey bu la gànde yi faloon jox la nguur gi ban mesure maanaam économique nga jël pour seen dund gën a baax. foofu foofu maa ñu kaa def mooy ne euh, euh, dépense yi damay damay wàcc dépense bi dañoo wàññi dépense yi in fact. Euh, dama def commitment ne office of the office of the president dégg nga di ci of ci kër présidence nag office bi waaye ci kër président dégg nga ñoo lekk doo sante ma ne dañ koo wàññi twenty five percent que yow euh, mun maa understand loo xam ne yow sa kër dépense bi na xam ne doo ko daan def sa kër lu tax soo ñëwee président ngay war a def dépense bi ma xam naa su dépense def sama kër fii suma njaboot ak yooyu so lan moo war a tax ba dépense boobu mun maa continuer di dund ci loolu eh? lu tax may war a jënd ay bu ees lu tax war a jënd ay furniture yu ees eh? yooyu yëpp eh, xaalis bi nga def ci loolu mun naa dem ci leneen so ñu ngi fi ne 25 pour cent ci eh, household expenditure bi nañ ko reduce te suñ demee sa bi gis ne 25 pour cent bi reduce dafa tuuti nañ ko yokka honorable di nga wàññi dépense yi waaye foo koy dugal ndaxte nag ñu xam nañ ko dugal ci éducation nañ ko dugal ci health amen eh, nag scandale la gàcce la barka démb rek la suma benn doom gaañu ci accident eh, ñu isi ko fa accident bi amee hôpital Banjul ñu war ko wàcce ci euh, ambulance bi mu mënuñu ko am wàcce parce que amuñ gloves ci hôpital bi. gloves mooy gant. waaw amuñ gloves ci hôpital bi pour non si mun a koo sol wàcce wàcce xale bi ba am na ku fa nekk koo xam ne moom xamante na ak ministre bi koo ko jël téléphone téléphone ministre du ko wax loolu. so façon yooyu kenn mënta dëkka ak yooyu ku am conscience loolu loolu su fekkee woon am kii ministre amul ku fa amante nag ministre et eh, na dina fa doon tax oh foog ñu dem jënda gloves wàllum xëy bi tamit nekk na lu soxal ndaw ñi ci réew mi xale yi amuñ liggéey te nag réew réew mi ñu nekk si téeméer boo jël 65 yëpp ay ndaw lañ ndax am nga ci plan pour ci suñ at loolu ci suñ twenty five ci agenda ci la bokk mooy number one agenda parce que duy naka rek saa buñ jógee ñu ne ndaw yi yéen yéen ay màggi ëllëg yi future réew mi yéen la ci la lañ yaakaar naka waxi kese loolu du yëg yàgg yàgg man dama yaakaar mooy loolu loo xam ne mooy war a yóbbu réew mi so uh, ndaw yi uh, ñu ngi nañ establish uh, youth entrepreneurship funds pour ñi nga xam ne mu nga nañoo def nga businesses am na ay ndaw yu bari yoo xam ne mécanicien lañu waaye organise suñ pour ñu koo xam ñu mun a def seen business ni mu waree. organisation organisation parce que dañ amul xaalis. parce que organisation bi def constat bi mooy Afrique. ndaw yi amuñu liggéey. bu ñu xoolee Gambie comme yeneen dëkk Afrique yi agriculture am na solo parce que nit ñi foo ñuy béy dundee waaye dañuy importe lu bari lu ñuy lekk alors que mën nañ ko def fii béy ko fii géej bi pratiquement amatul jën xale yaa ngi jël gaal di dem bitim réew def immigration clandestine te souvent bu ñuy wax dañu naan Gambien yu bëri. dañuy jël gaal di dem bitim réew ñooñu ban programme nga pour ñëw. waaw loolu laa loolu ci loolu laa doon ñëw nii ma ne ci suñu five point agenda bi pour ñëw youth entrepreneurship fund bi parce que euh, tey xale yi boo leen nee dem leen ci tool yi eh, doo war doo war xalaat ne dinañ dem liggéey ci tool yi suñ maam yi ni ko daan def ñooñu foog nga. amal leen ay équipement loolu tax ma ne da nga leen a da ci ay gox yi organise leen ci coopérative si ndax suñ demee bu pare pour dem liggéey ci tool yi dinañ dem liggéey ci tool yi duñ sonna te seen liggéey bi dinañ ci am njëriñ ngeen li fa xaw ak waa spécially dëkk yi nga xam ne ñu ngi ci eh, river banks eh, ci foofa nga xam ne géej ci la boori géej yi la nekk ñu am ay faro ñu war leen a defal ponds pour fish farming ak even eh, shrimps farming loolu yëpp bugg nañ ndaw yi dem ci béy maalo bëgg nañ daaw daa daa ñu jublu ci parce que liñ xa UDP liñ xalaat mooy euh, tonnage bi ñu dee euh, import every year at bu nekk bi nga xam ne boobu lañ de isi ci réew mi dégg nga dañoo def target year one nangam tonnage la ñoo produce so that yenn year ci toppa li ñu import dina wàññeeku ñu def ko noonu graduate graduate ko be am suñ euh, suñ target bi bu ñu amee suñ target bi nag dégg nga diñ toog ne comme nga am nañ enough pour lekk jeex na dégg nga dinañ continuer continuer euh, increase yokka suñ output bi production bi daañu mën a yónnee si biti si biti amee si biti si biti réew mi am na réew am yu bari even even si Afrique fii yoo xam ne ah, li li ñu yàlla may mayu leen faro ak yooyu through intra African trade ak even ECOWAS inter inter country trade in ECOWAS mun nañoo export suñ. Ah, produit suñ suñ suñ suñ produits yi yéen ci ci compte yoo xam naa ne Nigeria ñu dee ñu dee lakka maalo la waaye li seen production bi doy leen soo ñu ngee import ñu ñoo bokk ECOWAS su fekkee réew bu mel ni senegal ak Gam oh, réew mi ne Gambia mën nañoo dundal seen boppa ñu am excess mën nañ koo jaay Nigeria thank you very much honorable bu lolou weesoo nak ñu delo si wat touti sa digante ak Adama baro and bi rafet lol mu lay woy papa nga koy woy dom ngeen and mu def la jeuriñ Gambia buñ denk biti bitim rew moy jele la fa yob la vice président mu topp ci mom mu melni ni colère la won way mu jéki jéki and bi ñagas dégg nañ ko ci bëggon nañ am yewit si sa gis-gis moo tay ji ni ndax mun nga wax xëy ci tenk wax yépp ci tenk lan moo leen taxale diggante bu rafet bii ngeen àndoon ci UDP mu mu génnee la si bu mu faloo si nga génn kaso ngeen àndoo ngeen taxaliku mun nga ci wax tuuti lu waral seen taxaliku. Euh, Fana mën naa ko waxee naa ci ñett oj baat. Eh, Adama Barrow dafa décide ne triya mandat bi du du ci dal. dafa yokk so mu ut plateforme dafa ut plateforme boobu UDP la war a doon so dafa war man ma jël UDP jox ko ne ko jëlal pati bi ban pom mooma parti su bëggee nekk njiiti UDP suñ constitution bi nim mu ko tëree loolu la war a def après mu door di yëf yëfi bukki suma eh, chairman yi nekk ci dex gi di leen o ci Pet State House di leen jox xaalis di leen wax ne dama leen bugg a defal lii Mr Dab moo bañ ma leen ko defal muy muy yeneen daw di leen wax ne bëgg naa la def ministre waaye Mr Dab moo bañ même seen national président bi NPP dem boo bàyyi force loolu la ko mu ne ko bëgg naa la def ministre waaye Mr Daba moo bañ waaye Mr Daba bi génnee ci nguur gi bentey mu ëpp na ñaari at lu tax dafa ngu démboo ministre ñi nga xam ne daf leen wax ne Mr Daba moo tax ba joxuma leen place ñoo ngi fa bentey joxuñ leen place su place amee ñeneen la ko dee jox du ñooñu so maa ngi gisee loolu nag ci laa ci ma sant ma ne ko vice ma ne ko nag United Democratic Party ñi ko dundal ñu bari dee nañ ci am nañ ci ay imaam yoo xam ne dañ leen torxal ay borom kër mu am ñeneen nga xam ne mun ñeme ñoo toog ci biir réew mi ñu daw génn mu am ñu ci bakk jàkka seen bakken ku ba xaaj pati boobu nag maa yow la. justement commission bi génne na rapport ci rapport bu commission réconciliation vérité def na rapport am nee na am na ñu war a topp. ci ñuy war a topp wax nañ ci mbirum ex présidente Yaya Jammeh est-ce que boo julee nguur gi di nga toppali commission bi wax ou bien am leneen li ngay def. man am nga li ma doon xeex mooy impunity ne xeex impunity même su fekkee commission amut woon ma nekk président impunity bi fi am dama ko investigate su ma ci amee évidence dama la prosecute ba ñu am euh, lifin euh, commission boo xam ne ay nit ñu am intégrité lañu euh, nit yoo xam ne xamuñ kenn Gambia rek lañ xam ñu def seen report recommendation muy def loolu man as président dama ko implement because mun ma àlla mun ma bàyyi xale biñ ci dépense noonu loo dem ci doo dem ci dara mooy nga samp commission ba pare di def ci dépense yu rëy ba pare recommande loolu loolu. lan la njëriñ établissement est nga topp ex président Yaya Jammeh ou pas. dinaa ko dina am c'est-à-dire su fekkee recommande nañ loolu of course naa ko toppa ñu recommande loolu te man nekk président naa ko toppa su ma deful loolu waaye damay or Gambia damay or Gambia ñi nga xam ne ñooy victimes yi dama leen di or. président Barrow nee na diggante moom ak Sénégal comme mbuur ak soow. yoo boo ñëwee si nguur gi naka ngay gérer sa relation ak Sénégal. Euh, relation Gambie ak Sénégal ci man xëy na euh, euh, ak sukkur la eh, nga naa ne li ngay wax ay yàq waxi ñàkk a fayda ne UDP bëgguñu daate dem bëgguñ Sénégal suñ suñ fi toogee dañoo daaka sénégalais maa ngi laaj sama boppa sénégalais ordinaire sénégalais lan lay def. UDP government of Sénégal lan la def UDP mais UDP di xal fa am façon xalaat boobu waaye dañ xam ne àddina bi yëpp gis nañ ne UDP mooy solution yi Gambien te àddina bi ñu ngi bugg a eh, taxawu Gambien ñu ne xaaral ñi nga xam ne ñoo ñu gën a jegeñ Sénégal ñu jaxas seen xel. ku nekk président réew mi Gambia te nga bugg a euh, am policy boo xam ne euh, saxaltu jàmm diggante Gambia ak Sénégal dangay géttin sa bopp man xam na xëy na ñoom ñuy wax noonu dañoo wax ni rek waaye xamuñ ne façon décision boobu soo ko jëlee lu moo jur te xam nga lu tax lu ñoom duñ ko dee xalaat ne parce que seen bi moo mutut dañ amut analytical mind man tey su ma nekkoon président yi Gambia ma ne damay dagg daaxa sénégalais am na ay sénégalais yi nga xam ne Gambians lañ takka seen doomi fii lañ juddoo xamuñ senegal xëy na su ñoo dem xëy li ñoo dem conseil suñu amee xol yi ñu dem ñu dem seen seen bàjjen yi foofu ñooñu suñoo dem seen yaay yi ga seen yaay yi eh, Gambian lañu te ba because of that ñooñu Gambian lañu dañ suñoo daax seen seen bàyyi xale yooyu Gambian ñooñu tamit dañoo dañ leen war a dem pour ñu génn waaye li ci gën a am la fi mooy suñu defee loolu Sénégal itam feyeku daax Gambian si fa nekk te mun nañoo def leneen. la nga xam ne mooy gën a métti amee euh, tëj frontière yi retalier remain frontière waaye xam nga ñoom duñ dee xalaat ne hmm. lii mun na am soo ñu foog ne xaaral ñu wax lii waaye ñun mi nga xam ne am nañ intere Gambia lii yëpp bokk nañ ci suñu xalaat ne duñ def dara loo xam ne dina tax ba benn awa frontière yi Gambie ak Sénégal dina tëj bu loolu weesoo honorable euh, lu bari tamit si réew mi réew Gambia euh, dañuy wax mbirum xeet tribe te nag ñu seetlu ne cool yi bari na barki dem rek am na vidéo buy buy circulé affaire xeet diggante soose pël ak euh, wolof ak yooyu te si parti bi sax ñu jiiñ la jiiñal la ko ñu ne parti bi euh, soose yi ñoo si ëpp yan loo ci mën a wax te nag wàllum tribe yow boo falo noo ko mun a xeexee te nag Gambia nu ñu wax ñëpp mbokk lañ te nag buñ buñ buñ buñ xaajaloo rek dafay tax réew mi dafay dellu gannaaw lan lan nga ci mun a àddu ñu ñu leen di jiiñee xëy na yéen. again again again eh, da ngaa seetle eh, Mr Barry ne suñu five point agenda bi ñu présenté mos loo dégg benn parti fii mos loo dégg benn commentateur fii ne ñii five point agenda bi réalistique ne lii. di nga ko mën a implémenter soo lan lañ ar pour wax dina dañ koo ne lañu waaye ñuy wax loolu ñi leen ëllëg ba ñu nekk président fii soose yi la bi soose lañ aw adama bi mu fi nekkoon moom tribam bi xetam bi lu tuut la majorité bi soosey ñoo ko doon lifi su fekkee tribalisme amoon na fi bon soosey duñ ko doon duñ ko doon sànnil karta Adama Barrow léegi laay wax yëf yi tribe Adama Barrow dafay daf daan ma foog ab dënam ne moom soose la Barrow man naa si gëm lool ah, waaye soo gisee tey ñuy wax loolu dañ xam ne amul dara lu ñoo wax against UDP waaye man ci suma background boo demee ci suma famille suma papa ma juum ñaar ñaari jabar yëpp pël lañu ah beneen jabaram Banjul eh, olof la Banjul from Banjul fii eh, suma ñaar jabar yi kenn doonul ci olof soo soose yaayam joolaa la te chrétien la woon moom tuub nekka jullit te ci wàlli maamam ah, famille bu rëy ci biir Banjul fii famille Makumba Jallow foofu la jógee papaam foofu la jógee suma aawa bi baayam séeréer la waaye niñ toogee si biir Banjul dañ passé as wolof waaye yaayam pël la pël nga xam ne daabaali la coosaanoo waaye Adama baro nag moom nag ne li ne moom la ne pël la jabaram yëpp pël lañu te moo dee wax ni dina man suma yaay pël la saraxulee ñoom a yar suma baay soose lañ so yeuf yi xet mom moko gëna fonk man suma don li fi ne suma don suma don suma su fekkee xet dafa mata ci ma suma jabay yi benn ci nekk so benn ci nekk olof ñep dañu nekk soose té ci parti mi bopam depuis bi sampé parti bi ñi nga xamné ñoy ñi ci parti dafa na né sa olof ñoo ci waaye du ñoo gis loolu te moom Adama Barrow sax am na ma def daa wax ne la li UDP li fen am du benn dëgg parce que soo gisee leadership bi olof yi ñoo ci ëpp palasi for yëpp gannaaw liida bi muy man palasi for yëpp olof yi ñoo ko daan ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ko waaye xam lii nag dafa ci ci la waaye actuellement man ma fi difference politique ne et euh, <laughs> mos ma gis fi euh, ñu euh baña jox nit euh, place ne because of hatam la wa at least UDP mos koo xalaat then na la waxale ci ko ci fi xeet mm. bin formé dañ formé government 2017 d'abord naa doon wëccante aadama xalaat naka la ñu war a tànne ñu tànn cabinet bi yëpp eh, saraxule naka ci nekka ci séeréer nekka ci manjaago soose wolof aku nee ci benn joola mu am boo xam ne ma ne de lii dina baax lool pour benn xale li joo ku am xam-xam la ku mun a liggéey la ne kooku xëy na def kooku ci place boobu adama ne ma suma kàddu nag jiitu na ma am na ku dik dikk place boobu ne ko baax na ma ne bondoog joolaa yi dañ war a gis seen boppa ci government bi man ñu seet beneen palaas ma ne nañ def ambassador daana seen former speaker eh, Bojang ma recommend kooku ma ne Adama kii nañ ko def ambassade ndax joolaa itam jis ne ñoom ci government bi lañ bokk mm-hmm. parce que warta nekk ak government boo xam ne especially ci jamono bi ñu jógee noonu yaa jama nekkoon joola et na suy li fi ne loolu dañoo foog ne dañ leen a exclude dañ leen bañ war ñoo bokk dara te Gambians lañu waaye bi ma defee loolu ñi nga xam ne tey ñoo nekk ak moom lu nekk lañ ma wax bu ñaw lañ wax bu ñaaw boo mun a xalaat lañ ma wax maa ngi jaay government bi maa ngi ah. odrabal euh, juróomi at bi yaay jëmme demee ba léegi euh, économique bu ngi fii maanaam force ECOWAS bi bu ngi fii ci dëkk bi di liggéey ak euh, nguur gi fi nekk ban xalaat nga ci am est-ce que yaakaar nga ne jot na Gambie armée gambienne jël en charge sécurité réew. waaw jë nga réew bu nekk ah, sa national security service bi ñoo war a jël responsabilité pour sécurité réew mi. Euh, lu waroon pour économique ñëw fii mooy because ci temps boo ci euh, security setup bi particularly ci army bi euh, dañ am évidence ne am na ñu bari ñu fa nekk foofu nga xam ne amuñ loyalité ci gouvernement bi benn ñu ngi ji seen boppane Yaya Jammeh lañ fa nekkal so loolu war na économique nekk fi te loolu lu mu laaj nag mooy dañ war def security sector reform ndax ko képp képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci sécurité bi weda ci armée bi la ci police bi ci euh, secret service dégg nga sa xalaat muy xalaati républicain looy xalaat ne diw sàngam mooy président da may support dama ko support déet parce que yow da nga war jappane no su kenen ñewé as président damay liggéey ak so so sa xalaat nekk républicain lolu euh fo nga def reorientation nga wax jeuf determino, euh nga xamné no réelé ñu ci place te wañu fa nek té te dafa lim lim lim disa mooy yow as njit da nga war a pare dégg nga pour jël décision wala décision bi na neex individuel ou du ko neex waaye décision bi nag na nekk loo xam ne njëriñu réew mi la nga jël ko so pour économique pour man économique continuer fi ñàkk a continuer fi loolu dafa dépend su fekkee su fekkee déclaré nañu président ñu am trop briefing on the security sector secteur ci la ñoo mën a jël décision ne économique war naa dem o économique wartaa dem because doo jë doo jóg doo war rek nag déedéet waruñu fee nekk te ehm, ma refee xii na Gambien si bari ne eh, économique day ñëw eh, dañ am beneen mission budut mission professional so this, uh, nag dañu war a disabuse suñ may ne na Gambia government moo def request bi uh, xaalis bi ñoo dépense ci économique xam naa ne yeneen uh, chef de état yi nga xam ne ñoo doon approuve pour ñu ñëw fi duñ ko doon approuve su fekkee nekku ne njëriñ sécurité bu Gambia bi waaye nag xam naa ne ñoom itam nañ dem ba jamono boo xam ne naa ne lëg continuer nag di dépense ci économique eh, eh, te Gambia defu lu ñu war a def so security sector reform bi dégg loolu ñoo su ñëwee loolu dañ ko accélérate. honorable lu si des laata jongante bi bëritul xëy na suñ waxtu bi sax meeyatu ñun du bëri si tënk rek xëy na honorable eh, laata jongante bi yan assorance si sa intelligence party maanaam sa renseignement ndax yan assurance nga am ne di gagné di nga win élection bi. well well euh, assurance loolu wax jooju dafa dëgër trop. ñu waaye yaakaar moom. daa ne loolu am nañ ko. waaw si ñaata personne. well euh, naka lañ ko waaye duma dee xam waaye nag xam naa ne. Eh, eh, euh, dinañ win ci margin boo xam ne. Eh, kenn du di. waaye problème bi Gambie élection bi simple majorité la foog loo ne. su seconde taw amoon moo doon gë moo doon dàq. en fait ci UDP nag bii moo gën ci UDP lii moo gën gis loo ñeneen partis yi ak yeneen nit yi nga xam ne bëggoon nañoo taxaw mënuñoo taxaw dégg nga kenn ñëwul ci UDP ñëpp ci baro lañ dem soo su second round doon am ñoom ñëw dañ doon dem ci baro waaw with this simple majority. xam nañ ne incha allah ñu ngi ñu yaakaar nañ ne incha allah dimanche euh, congratulations si fii lay nekk. last question. Euh, boo boo gagné ba ban mooy premier réew da ngay dem. Euh, mooy mooy war a dem you know mooy sadakandoor you know def ne li fu ne ku nekk ku nit ku nekk soo amee jaama. Euh, yaa ngi ko war a ak sa yaa ngi war a bokk ak sa te ñëpp suñ dëkkandoor lañu waaye nga xam ne yaa ñoo ñaa bokkandi ak baay mooy ngay naan lakka benn euh, benn lakka ñu kooku moo gën a nekk sa dëkkandoor soo euh, yaakaar nañ ne su fekkee am nañ fu ñoo njëkkaa dem dina nekk fii you su suñ suñ gannaaw fii rek bari suñ demul fa sax waaye nag jog ñu jokkoo ci téléphone bi loolu dina la fi waaw. honorable euh, euh, Ousaidou Darboe ñu ngi lay gërëm di la sant ci dalal bi ñu dalal fii euh, groupe E-Media ITV iRadio et E-Media point sn ak bés bi journal bu bees bi ak Amadou Bari nekk toogal mi fi ñu waxtaan ak yow. de Grand tamit euh, direction générale Mamadou toute l'équipe technique pour nous accompagner pour nous réaliser émission de la Grande ah! Ressente. Yeah. Bu mu sa tàyyi si demokrasi, wulen leen mu sa abiwu démocratie mooy sunu doole si biir réew mi saame fo taskaa teg am baat ci réew mi lu ma leen di ñaan ku nekk gën a dem fóot rek si jaama bu ñu xeex bu ñu sama suñu jaama politique politique jaay muus na du jaay am fit élection baa ngi ñëw yow bu fitti ye ah yen december 4 la banko nyanta katre fele hakilo di be la katre keso di la min fana la mafo faye kuo ka fo doron ko banko la kuo nyanta tarra wolda faya lon ka bete ko di kuo ndun sulata mola min be lola jata kende ala faye fenda dala wafi banta mbe fanna fala corruption no mu yankan ka tol di fanga fatala sulata mola min be bela ñaso tala fala si fatan faso manke fendi tema nafa jala adum mil ka titar nyin kuo la lon ko mira tela Bulga me sa taise démocratie Dis-moi, you and me sima sinyodole fi Kepa kuneka gambia feet. la bantejo Kwenjelo e men andi ko hombo e maɓɓe moƴƴi fi leydi ndin Kwenjelo e men andi joyurmene addoye ñamdu e ndiyam mitorike on yandi vote vote ɗum danday fayde a ko fi jango vote vote wota go to jodo. mi jeeji on vote vote ɗum danday jango vote vote ko fi fayde landa tun kanun taga kabar yo kan sagarene nahonyokana nkengakebeka siritoi osunipane omakagaya osunipane onamedaro otengarini karosumbogu ondaga ote omakagaya onsage kandija mundo heri osugane setane onalataya antaleminaku antahirisaku karosunambogu ondaga kocensedi leminentakedi hirisentakedi oswanyerake jamane nogondi awule majola sarakule maserere osunipa ne ke jamane no kondi yeah ah uh. wadla kuta kwela sikoras fa mankonji ye pare ungar ja sikoras manu tep skule eh. lopitane disi jumas uma urutu beten na fabukanak janten sikoras sembai nana sofe pumbin urung ja kan jak sofi korai manu jonen fortes kate iya jaku mubeten ngar fortes kate iya manu poi jak I had the better room game. Kaboom! Uh. We get you, them. Can I mention National Assembly election? You have to vote in the right one. The right members, they pass the laws, best remember, affecting your family members. Local government, you can vote them in, you can vote them out if things not working out. Same with the presidential, no vote by emotion, vote them by credential. Democracy. democracy see my your dollar fee. Amuyila nyantoti kate faye mwe nyantoa Amuyila nyantoti kate faye mwe nyantoa Amuyila nyantoti